yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa auzu billahi min aseytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min aseytaani rajim rabbi auzu bika min hamazaati sayaatin wa auzu bika rabbi an yaxduruun assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbooleem ñi seetaan ci réew ñu ngi leen di nuyu ak fu ñu mën a nekk di leen siyaare bu baax te di leen ndokkeel ci weeru tedd bu màgg wi di shahru ramadan di ñaan suñ borom ñu dugg si ci bismillahi rahmaani rahim te defe ko niñ ko suñ borom sante te yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ñëw tey ci seen émission eh, di eh, soññante ci weeru koor gi eh, ñu waxtaan tey ci Euh, nit ki nan la war a comporté woo ci jamonoy koor gi muy nan la war a doxale ngir suñ borom mën koo nangul euh, kooram euh, liñ ci jiital rek mooy ñu fexe xam ni weer la woo xamante ni ni ñu ko waxee woon ci sunu émission yi weesu rek weer la woo xamante ni weeru njëggal la weeru gore ci sawara la waaye itam weeru yërmande la kon nit ki bu ci xasee tàbbi dafa war a profité ndax benn guddi mu ngi ci goo xamante ni suñ boroom wax na ni moo gën junniy weer laylatul xadri xayrun min alfi sahri mooy guddi guddik laylatul xadr kon nit ki bu wee mën na caa amee loo xamante ni mën naa dund ay at di jaamu yàlla te du ko mën a am kon nag weer la woo xam ne bu ci ñëwee nit ñi war nañoo fexe ba delluwaat ci seen borom mooy profito kenn ku ci nekk la nga daan def ci lu baax nga xam ni fii la ëppee solo ndax fii la ëppee tono mooy da ngay tonowu mooy loo doon def ci lu baax suñ borom di la ci fay benn boo ko defee ci weeru suñ borom dala cay fay fexe ba laabal sa jëmm boo daan saraxe nga fexe sa sarax yooyu nga yokk ko ndax sarax moom euh, day fank ab musiba buy ñëw waaye itam day ñoddi njariñ loo xam ni yéexoon na te waroon a agsi fexe ba itam nit ku baax koo xam nga dem siyaare ji ko seeti ko loola it dana tax ba euh, suñ borom dana la gën a yokkal sa ay tuyaaba ndax weer la woo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xad ataakum shahrun mubaarakun tuftaxu fiihi abwaabal janna wa tuxliqu fiihi abwaabal naar wa tuxayidu fiihi shayatin nee na weer la woo xamante ni su ñëwee suñ borom dafay tijji buntu àjjana yi buntu àjjana yépp suñ borom da koy da koy tijji waaye mboolem buntu sawara yi itam suñ borom da koy tëj waaye seytaane mi nga xamante ni ne alxuraan dafa wax ne inna seytaana kaana lakum aduun mooy seytaane seenub noonu la nee na seytaane suñ borom da koy tënk ci weer woowa ba weer wi di jeex kon nag weer boo xamante ni suñ borom da cay tijji buntu àjjana yi tëj ca buntu sawara yi tënk ci saytaane yaakaar naa képp koo xam ne ku seytaane doon yàqal nga soo góor góorloo yàlla mën na laa musal ci mboolem yi nga xamante ni fexe seytaane la waaye itam mën na laa defal sax ak pay goo xamante ni dana la jëriñ àdduna dana la jariñ alaaxira kon nag ñu ngi soññi sunu mbokk jullit ñi ak mbokk taalibe yépp fu ci waay nekk rek nga xam ni weer la woo xam ne weeru ñuy profitoo la ci jaamu yàlla ak sàkk lu baax ñu ngi ñaan ñu dugg si ci bismillahi rahmaani rahim te def ko ni ko suñu boroom sante te yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ah, loolu moo doon li nga xamante ni moo doon soññee bi ci mbooleem ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy teewlu ñëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yóbbalu yóbbalu bis bi dañ koy tënk ci maanaam euh, doomu aadama bi Euh, suñ borom ñeent yi nga xamante ni moom la ko booleel ngir mu koy yàqal ndax doomu aadama buy dem ci kaw suuf rek suñu borom boole na ko ñeent yoo xamante ni ñeent yooyu da koy gàllankoor ci digganteem ak boromam su ko defee ñu ñëw ci bu ñu noppee soog a ñëw ci naafila bis bi. Euh, dafa am ñu joxe misaal rek ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba dafa am bis am benn naar boo xamante ni dafa sëñ bi dafa julli ci jumaa ji timis ba noppi di génn mu daw daal di laxasu ci tànkam daal ne ko doo fi jóge te ma ci yàlla. ndax moom da def bu jaamoo yàlla ba jub góor yàlla yi rek am kiiraay bu dox ci digganteem ak góor yàlla yi ba du mën a yegg sëriñ bi daal ne ko bindal ndax mokkal nga isaa jaa akal na mu ne ko waaw mu ne ko bindal mu ne isaa jaa akal munaafiquna xaalu nashhadu sëñ Tuubaa ne ko taxawal ne ko bindal nashhadu mu bind nashhadu sëñ Tuubaa daal di jël loxoom teg ko ci nuun gi daal ne ko an nuunu nafsuka ne ko nuun gi mooy sa bakkan daal di jël bi tegaat ko ci siin gi ne seytaanu ka ne mooy sa seytaane daal di jëlaat loxo bi teg ko ci xalkubeer gi ne ko wa haw hawaaka ne ko xalkubeer gi mooy sa bànneexu bàkkan daal loxo bi ci del gi ne ko wa daalu dunyaaka del gi mooy sa àdduna ne ko nanga xam ni sa bakkan sa seytaane sa àdduna ak sa bànneex ñeent yi lu toll ni tomb bu nekkee ci sa xol du ma la àttan bu mën laa yóbbu ci yàlla li muy teg tegtale rek mooy ñeent yi ñoo yi nga xam ne ñoo sonal doomu aadama mooy nashadu mooy nafs seytaan hawa ak dunya mooy bakkan seytaane bànneexu bakkan ak àdduna kon nag ñeent yi kenn ku ci nekk war ngaa xeex ak moom ba mën cee mucc loolu moo doon seen yóbbalu bis bi ñu leen di sant bu baax a baax ci teewlu gi yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi alan wasa ñëw ci li nga xamante ni mooy naafila gi naafila ñetteelu fan gi dañuy ñaafil ak ñetteelu fañ bi dañoo wax ni képp koo xamante ni julli nga juróom-benni rakka rakka bu nekk muy nekk am ñetti sëlmal rakka bu nekk nga def ci fatiha def ci inna anzalnaahu fi laylatil xadri ak xul yaa ayyuhal ñeenti yoon euh, suñ borom dana la defal ci ab yool ni koo xamante ni goreel nga junniy jaam yoo xamante ni jàppoon nañ la jàppoon nañ leen ci jamono yonte bi sallallahu alayhi ndax léegi jamonoy jaam amatul waaye nag cig pay ci jamono boobu ku goreel junniy jaam lañ la say fayee nee nañ képp koo xamante ni julli nga tey juróom-benn ràkk yi suñ boroom dana la ko defal suñ boroom itam dana la defal euh, koo xamante ni woor nga junniy weer ci weeru koor nee na itam dina la bindal ci ab yool loo xamante ni mbooleem picc yi nga xamante ni ñooy naaw ci kaw suuf suñ borom dana la ko bindal ci aw yiw mboolem picc yi nga xamante ne ñooy ñooy naaw lépp kon loolu rek jar na kenn ku ci nekk war ngaa mën a euh, waajal euh, fexe naafila gii nga fexe góorgóorlu ba def ko ñu ngi ñaan suñ borom defal nu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xayra day finaata bil bi siwal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا حد